asalaamaaleykum mbokki internet yi daleen ak jaamu Sen Sport 221 te ñëw ak yent hamne li nga xamne mo gëna fess ci bop kayti xibaar yi tambalé ko ci Europe ak Conference League bi nga xamne tay ji lañu doon jouer final bi digënté Olympiakos ak Fiorentina Olympiakos nak moko ko dal di gagné muy ancien club ki nga xamne moy abu Ousseynou Ba Pape Abou Cissé tay ji ñom ñoo gagné li nga xamne moy li di Conference League bi 117e minute ci lañu duggal nak bit bi nga xamne mo moo leen jox ndam ki ñuy wax El Kabi moko marqué Ayob El Kabi bi nga xamne mom ap ab marocain la mo marqué bit bi leen jox ndam ci 117e minute manam ci prolongation yi ñu gis na li nga xam ne mooy ndam li lay waral na ba jamono bi ñi di wa Olympiakos moy ñël njëlbeenu équipe bu joggé ci Grèce dal di gagner li nga xamné voilà moy li di coupe d'europe mo suñu gagner ligue des champions Europa League amul benn compétition buñu mësa tek ci Europe rek ta benn club joggé fofu la ci Grèce dal di koy gagner Olympiakos moy club bi ko ñëk def gannaaw bi mu amé ndam tay jilé El Kaabi bi nga xamné nak mo marqué bit bi mo melni africain yi fess nañu lool ci li nga xamanteni voilà moy coupe d'europe bi ndax ñaari final yi ñu amagum man nañu gis né africain ñoo joxe ndam yeen ngi fàttale ko ay bëss rek ci ginnaaw bi ñuy final li nga xamné moy Europa League bi ki nga xamné mooy Lookman di nigérien moo marqué li nga xam ne mooy bit yi jox club bi nga xam ne mooy Atalanta ndam tey jii beneen africain dal di joxe ndam muy El Kabi bi nga xamante ni ab marocain la moo dal di jox ndam ñii di waa Olympiakos moom mii nag day bu ñu xoolee sax de dafa tàmbali dugg ci taarix ndax kat mooy jour bi nga xam ne moo ëpp lu mu marqué ay but ci li nga mooy phase élimination direct ci li nga xamante ne mooy coupe d'Europe moo xam koo xam ne mos na ko def bu ngeen fàttale ko ku ci mel ni Cristiano Ronaldo defoon na ci mooy phase élimination direct maanaam dóor toog yi voilà ki nga xam ne mooy Benzema def ko ni daaw jéeg ci atum 2022 fukki bal ci phase élimination direct képp Falcao moom it defoon ko ci atum 2011 waaye nag ki nga xam ne mooy LK bi moom daf ci yokk benn maanaam 11 but la dal di marqué ci li nga xam ne mooy atum 2024 bi la mooy njëlbéenu joueur boo xamante ne ci phase élimination direct maanaam ci dóor toog yi képp mu marqué ci fukki bal ak benn lu may loolu. ligue 1 française japp nañu né voilà dañu nekk ci yoonu out li nga xamante moy sen chaîne bop dal di diviser sen bop li nga xamante moy ligue 1 bi manam championnat ba li ko waral moy ba ñi waxé amagu amaguñu li nga xamné voilà moy diffuseur ndax kat buñu sokkandé ko ci taskoti xibaar yi ñi nga xamante ne ñoo di wa canal plus mom dañu lank né duñu négocier ak ligue 1 bi xawma ndax ndax liñ leen di fayee ko dafa cher ak luñ ci mëna xew dal mënul am li nga xamante moy mooy waxtaan bu dox ci digënté ñom wa canal dañu lank té bien sport gi nga xamante jamono bi ñu ngi doon waxtaan ak ligue 1 bi voilà ngeen ñoom ñu nekk li nga xamantene moy chaîne yi diffusé li di Ligue 1 bi lool nekk na lo xamantene jamono bi kat deggo amagu ci te sax mo ngi yoonu jaaré fa tabbi geej manam dal melni ni juboo amana du ci am motax tax ñoom daal fi li nga xamne mom moom lañ xalaat moy out li nga xamantene moy mooy chaîne yi bopp su ko defé ñu dal di deng maam diffusé sen bop li nga xamantene moy mooy Ligue 1 bi xamna naa ne loolu mooy li nga xamne jamono bi mom la gëna sentu ndax championnat bi kat bu ñu baye xel wër yi néw da fa reprendre waye nak ci yeen chaîne lañu koy seetaan xamaguñu ko du beIN sport du canal wala amul ci kenn koo xam ne rek jamono bi am nga déggoo sa digganteeg Ligue 1 bi moo tax kan ñoom jamono bi ñu ngi ci yoonu dégg nga maam créé li nga xamante ne mooy seen propre chaîne dal di dégg maam diffuser li nga xamante ne mooy lii di Ligue 1 bi Rodrigo bi ñuy doon laam-laamee ni ki démb wala barki démb ci kàddu yu ma yëkkati woon ci ne amaana dafa bëgg a jóge ca équipe bi di Real Madrid te ñi nga xamante ni nag ñoo dee taskati xibaar yi génnoon di na loo xamante ne du wax ju taxaw tey jii kayiti xibaar yi génnaat nañu di xam ne ne ki nga xamante ne mooy Luis Enrique moom Rodrigo moo ko tee nelaw te nag mu ngi defi pexe ngir dal di ko yóbbu foofu la ca Paris saint ndax kat xam ngeen Kylian Mbappé moom ñu ngi koy annoncé ci équipe boobu di Real am xarañ te am avenir te it mën a football te nañu Luis Enrique ku bëgg gone gi la dafa bëgg lool ki nga xam ne mooy Rodrigo maanaam profilam daal neex na ko lool te Rodrigo nag jàpp naa ne bépp équipe bu ne di nga ko bëgg ndax mën na jouer comme excentré gauche mën na jouer excentré droite mën na jouer ci kanam maanaam mën na pointé te sax mën na jouer li nga xam ne mooy numéro 10 comme ni mu koy defee ak équipe nationale bu Brésil kon joueur bu polyvalent ko fi teg day dem waaye nag li nga xamante ne mooy a fa mu ni nii amaana tax na suuf amaguñu lu leer ci mbir moomu moo tax Luis Enrique moom jamono bi mu ngi def pexe ngir daal di koy récupérer yóbbu ko foofu la ca PSG mbir moomu dinañ wéy di ko topp dinañ ci dellu si Serigne bu Mbacké borom xam-xam la bu yalla may ci walu ñaan képp ko xam da danga am jafé jafé wér wér-gu-yaram na jàngoro yi nga xam ñoo lembé jamono bi lu ci melni ndoxum city bi nga xam ne daanaka gis ma ngi doxantoog mom mo xam ci ay tankam lay feñ wala ci kawaram wala fu mu mën feñ ci yaramam serigne bi fay fajj lolu nga xam moy ndoxum city Serigne bi dina fajj hémorroïde ba ci sax new katan di jàngoro ji lembé lol ci kër yi sonal lol borom kër yi mo xam góor gi nga xam ne yegg bopam wala ki nga xam da fay gawa yegg solution bi Serigne bu Mbacké la jokol ak mom mu lijeenti say mbir ci sutura nga dal di sante yalla serigne bi yamul ci lolu képp ko xam da nga bëgg ko ci wërsëg wala li nga bëgg moy bayre kawe ba ci kaaraange am na jaarub bayre am na jaarub ubbeeku ci wàllu wërsëg ba ci jaarub kaaraange sëriñ bi dina defar ay fas fas yoo xam ne dina dimbale jigéen gi nga xam ne dafa taxaw maanaam mënul am doom ba ci listixaar maanaam seet say mbir càmbar ko ba nga xam fi ngay teg sa tànk yii ak yeneen sëriñ bi yàlla may na ko ci comme ñëpp dañ ko yittewoo nag sëriñ bi dafa yombal seeni mbir am na ñetti bés yu muy def Dakar ci semaine bi képp koo xam ne 78 89 61 wala 77 328 72 31. Asan Diao bi nga xamanteni mom hispano sénégalais la nek fofu la ci Real Betis mom dafa Nek ci yoonu jóge ci équipe bobu mom xam ngeen ne 18 ans képp la am Cheikh Ndoram bi waxon na nek fi temps yele mom itam mu ngi fofu la ci lii di liga bi voilà waye Asan Diao mom mo nek ci Real Betis di xibaar li ñu xam la moy dafa nek ci yoonu dem ci AC Milan manam AC Milan ñoko bëgg voilà dal di koy jëlé fofu la ci Real Betis xam na ne bu doon mbokam wala ku ko mais booy it na ko toogal ndax AC Milan équipe bu mag la de équipe bu mag la boo xam ne dañuy dem di jouer ay Ligue des champions ay compétitions yu mag yu ni mel bu fa demee amaana day toog ban rek temps de jeu bi muy soxla daal xëy na ci Real Betis la koy ëppee chance waaye loo ci mën a dégg loolu yëpp xañ na moo ci suñ kanam li nga xam ne daal moom la xibaar yi indi mooy ñii di waa AC Milan yitte woon nañu ko te Real Betis nag amaana dinañ ko dal di bàyyi mu dal di dem moom ñu fàttali leen ab ailier la voilà ku am xarañte la gis nañu ne li nga xamante ne temps de jeu am na maasewul amoon na jamono nag Pellegrini jëloon na ko da doon titulaire di marqué la a ko ci taskatu xibaar yi Inter Milan mom ki ñu bëgg moy ki di Aaron Wan-Bissaka nek lateral fofu la ci Manchester United wala mom nak nekkoon na fi ko xamne ay jamono sax Man United doon nañu ko pousse bëgg ko jaay mu lànk du dem amoon na fi ab dir bo xamne dañ ko tegoon ci baam sax daawu ñu ko jéloo tay nak gis nañ ne muy joué mu ngi ci forme way Inter Milan ñom yitté won nañu ko fukki million nak jamono bi mom lañuy ñuy xayma njëgam voilà fukki million ci xaalisu Angleterre lool nak nee nañu ñi di wax Inter ñu ngi ci kom ngir yobbu ko fofu la renforcer seen équipe gannaaw bi ñu gagné li di serie A bi da bëgg wéyal li nga xamne moy jëlaru yene mel Inter Milan dafa bëgg a teg tànkam foofu la ci Italie bu ngeen fàttale ko daaw ñoo finaalu li nga xam ne mooy Ligue des dal di koy ñak ci kanam Manchester City ren jii xëy na yegguñu final bu way fexe nañu ba gagné li nga xam moy Serie A bu Italy bëgg yok li nga xamante moy seen wala dal di wutali won te Wan-Bissaka milé bokku na ci ñi nga xam jamono bi tek nañu leen bëtt bu ñu sukkas nako ci taskatu xibaar yi Manchester City mom ak Chelsea football club yëpp dañu bëgg ki nga xamante moy Alphonso Davies bi nga xam joru joueur Bayern mënuñ la nga xam mom bu yàgg ba légui ñong koy top ngir mu yok contrat mu lank ba légui ni déggo amagul ñu ci tuddu équipe bu melni Real Madrid waaye fofu melni ba tay ji dara leragul ndax kat jamono yi dégg nañ ci yene ci de xibar ci li gëna fess ñuy xam ne ne ki nga moy ne mooy mom da moom tok da fay dess fofu ndax Ancelotti da koo fonk lool motax dinañ ko ko bàyyee da bu fekente nak ki di Ferland Mendy dess na fa ki nga xamne moy Alphonso Davies amaan na moom ak demam fofu la ci Real Madrid man na nek lo xamanteni man na tagga témbe équipe bu melni Man City xam ngeen ne moom poste bobu amul ko xamanteni ne wala na voilà latéral gauche de métier bu fa nek ko xamne war na ko mëna jouer jamono bi nak ki nga xamne moy Alphonso Davies bii Alphonso Davies nak ko am xalanté la ko offensif man limuy def lool waye nak Chelsea Football Club ñom itam ñoom ñoo ngi ci bu ñu sukkandakoo ci taskatu xibaar yi Arabie Saoudite moom Yacine Bourou la ñu tànn na ko yaay gardien bi gën a mën jàpp ci li nga xam ne mooy saison 2023 2024 xam nga ñoom ñoo gagné sax lii championnat bi mooy Al ndax moom ak Kalidou Koulibaly ñu bokk benn club joué nañu championnat ba mu jeex te jëluñu benn defet voilà équipe bu dëgër la yor défense bi baax na waaye gardien bi moom itam baax na moo tax moom la ñu dal di tànn voilà moo nekk lii di meilleur gardien ci championnat boobu di Saudi Pro League mu ngi noonu gars yi loolu mooy li fi gënoon fees di leen wax ngeen wéy di topp Sen Sport the best sport news channel